بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ginnaaw bu ñu sante sunu boroom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi moom sunu boroom noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamam xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain bindab tay bi ci tawfiqi sunu borom ñu ngi amoon yéene def ko ci tombab sifaatu zawjati alsaalixa melokaanu jigéeni sëykat ci sunna sifaatu zawjati as-saaliha soxna su baax maanaam li ñu tuddee jabar jabar ju baax joo xam ne l'islam reconnaître na ak mbaaxam naka lay mel waxtaan wu mel nii jàpp naa ne bu mat di baril la li ko waral mooy ñun ñépp suñu dundutaa aajowoo ak jooyantiwaat léeg-léeg sax dinañ di sonn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom mooy am ci biir néegi sëy waaye jàpp naa ne bu ñuy wax jafe-jafe yi bokk na ca xulul ya mooy ñu delluwaat ca reen ya nga xam ngeen ni jafe-jafe boo ko bëggee saafara da ngay dellu ca reen ya mën a xam lu ko waral bokk na ci yéen mën a lim ci yi koy waral mooy ñaaka jubbantiku yaay yi ba mel ni lislaam bëgg ñu mel ni kon azawjatu saaliha jigéen joo xam ne lislaam reconnaître na ak mbaaxam dafa am melokaan wu mu war a yore melokaan woowu nag ci sunu mawdu ak tay bii bu soobee suñu boroom bu ñu waxtu njatut lool dees na ci lim aslëf du caage ni jigéen ji nga xam ni dafa tàbbeegut ci biir néegi sëy moom day jàpp ni moom rek moo moom yëf yi déedéet dëgg la nag bu ñu seetloo moo ca dara ëpp chance jigéen ji nga xam ne tàbbeegul ci biir néegu sëy moom rek moomut yëf yi donte moo ci ëpp chance ndax ak jekkas ndiku bu baax la ko mën a jural jagoo wutit nag jigéen ji nga xam ni moom am na borom kër ba nuppi waaye yor na ci ay melokaan donte gis na ni am na yu manqué du moom rek moo ko moom donte ak joyantiku la koy jural ki nga xam ni moom mi ngi ci biir néegu sëy waaye ci gàttañ lu gu mat sëkk nag la nekk kooka moom mën naa ni moo ko gën a aajowoo yemul foofu waaye bépp baay boo xam ni yàlla wërsëgal na ko njaboot bu jigéen mu bëgg leen a teg ci teguwaay boo xam ni lislaam gërëm na ko ba bu ëllëgee ñu mën a bokk ci jigéen ñu baax ñii ñuy lim lislaam reconnaître leen seen ak mbaax ndax bu leen fàtte ni maanaam nit ñi naan baax nga baax nga loolu du mooy compte li compte mooy lislaam nangul la ko lislaam nag pour mu nangul la ak mbaax da ngay mel nim bëgg nga mel ni ba léegi yaay ji nga xam ni moom xëy na sëy na ba jaboot moom it am na ci wàll la ndax fii ak faatu ñëwagut dund gi lu ne mënees na ko cee jooyanti fii ak sëy bi jeexagut lu ne mën nañ ko cee jooyanti mu jëm ca jëmmi boppam ja waaye ñaareel ba it njaboot gi ko yàlla dénk mu nekk ka mu rabbee di yarkat mën na caa wane ak njàngale bu am solo goo xam ne mi ngi ko jëlee ci alquran ak sunna yemul ca loola waaye yarkat yi jàngalekat yi muy duwaat yi ñoom it mawdoo mu mel nii danañ ca gis seen bopp ndax dana leen xalalaat weneen yoon wuy wane ne kat ndeke mbir mii mu ma dara sonn la ndax yaay ju baax kat lim mën a fournir société bi lu rëy la te it lu màgg la jigéen nag yàlla daf ko def mbokk yi mu mas a nekk ku am solo ci dund gi am solo googa moo tax noon yi xeeti yóotu bu nekk jéem nañ koo yóotu jigéen depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey xam ngeen lislaam ni mu tàng ja jàngalee jigéen mel ni ci yar ba ci kersa ga ci gàttab tànk ci ormal borom këram yëg na sangam la njaatigéem la kilifaam la yooya bi nga xam ne noonu lislaam yi gis nañ ko xam nañ ni jigéen jumtukaayu yàq bu mag la jéemoon nañ luñ man ngir génne jigéen tey réussir nañ ba lislaam di jàngale nag doon nañ def lu ñu man pour jigéen génn waaye seen pexe yooyu réussirul waaye tey moom réussir nañ ndax fexe nañ ba télévision yaa ngi ci biir kër yi fexe nañ ba internet yaa ngi ci biir kër yi fexe nañ ba jigéen ñaa ngi génn fexe nañ ba ñu ngi diir mbagg góor ñi fexe nañ ba defatuñ ñi nga xamante ni ñoom ñooy seeni borom kër ay kilifa yooya ay yëf la yoo xamante ni fi mu ne nii kon jigéen ci xeeti yàq yooyu nga xam ne def nañ ko ko sabab la ci wax dëgg yàlla jigéen ñi mënatuñoo jur jigéen góor ñoo xam ni mel na na lislaam bëgg ñu mel ni waaye fonk gi ñu war a fonk seen sëy ak réussir ba it amatuñ ko mooy ne bu ñu fàttalikoo jigéen day ku mës a am dayo la ci lislaam comme ni ma ko waxee waaye dayoom boobee yépp la ko yóbbee woon mooy déggal yàlla akub yonenteem ndax jigéen yiw ga fegu ga am diine ommatul boroomam mu nekk koo xamante ni mboolem melokaan yu sibuta salte yi nga xam ne tey ñi ngi ko koy askanele kenn ñi mawut ko woon a jox booba daa fekkoon dafa jokk woon ci boroomam mu nekk koo xamante ni buntu ubbikaay yiw la nekk buntu tëjukaayu safaan ñu yëg ni nag jigéen ñi balaa ñuy soobu ci waxtaan wi am na tomb bu am solo bu bëgg ñu bàyyi ko xel ndax waxtaan wi jàpp naa ne ñoom la gën a amal solo mooy jooyante ko ba mel ñu jigéen ju baax di mel mënta am lu dul ñaari yëf da caa daje benn ba effort la bu nit ki di def beneen ba ndimbalal suñu borom la effort bi nit kiy def xam ngeen di alquran dafa saxal ni ma yahdihi llahu fa huwa al muhtad képp ku yàlla gindi kooku rek mooy ku gindi ñaareel bi suñu borom mu ne wallahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yashaa'u ila siraatin mustaqim suñu borom day woote ngir nit ñi nañ jëm ca kër yiw ga muy tàbbi àjjana te it di gindi ko ko soob mu jaar ci yoon bu baax wi léeg-léeg wallaay da nga gis jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla waxuma la góor ñi waaye ay moroomi jigéenam sax dañ koo ñëwee ndax ni mu yaroo ndax ni mu fonkee sëyam ndax ni melokaan yu yu am kersa yi ne ci moom ndax ni mu jubbantikoo ba nit ñi sax dañ koy ñee ay moroomi jigéen jigéen nga xam ne li mu mën a soxare soxare moroom ma lépp dana ko ñee loola da ngay xool ba mu yàgg da ngay xam ni lii moom jigéen suñu borom kese la maanaam am na yoo xam dafa mel ni mooñ ak suñu borom la boo xam ne moo ko mooñ jëmm jëmam mel noonu ñaareel bi nag effort la boo xamante ni nit ki daf koy def ndax it léeg-léeg am na nit ki lu mu yëg ñu amut ci moom ñuy defar ak a jooyanti bu yàggee mu soppeeku ndax nit gis na soxna soo xamante ni xëy na melul na war a mer ñu jàpp ca di jooyantee ko wax ba mu xëy soppeeku jigéen it dégg na ay kaset déglu ay jàngale waxtaan yu mel nii mu waaru ca fàttaliku ca suppeeku loola effort la bu nit kiy def ñaar yooyu nag mënees na koo tënk ci benn kàddu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ihras ala ma yanfauk mu ne wastaan billah xadis boobu imam muslim moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ihris ala ma yanfau lépp loo xam ni dalay jariñ mu ni xir ca sonn ca waaye nag na ngay dimbandikoo yàlla baata ihris ala ma yanfau firnde la bu lay wan ni kon nit ki lépp loo ko loo xam ni su ko defee dana ko jural yiw wala mu jural ko jooyante ko wala mu jural ko gën a baax wala waxtaan woo xam ne bu ko dégloo mu mu jariñ ko yooyu dafa war a jug jëm ca loolu mooy effort bi muy def wastaan billah mooy dimbandikoo gi muy dimbandikoo yàlla ndax nit ki bëgg naa mel nee na ni bu ko suñu borom defalul ak jàppandal bu sotti ña ñaareelu njàngale bi mooy ñu xam ni jubbanti ko jooyante ko lislaam moo koy wax moo koy dox loolu li ma ci bëgg wax mooy léeg-léeg nga dégg nit ñi ni hii cay diw diw de jigéeni saykat la diw de ku baax la di wax a wax a wax ba yeggal te yow boo ko xoolee benn mandarga muy wane ni ngërmaande yàlla du feeñ ci moom loolu nit ñaa ko wax waaye amul solo maanaam toujours dinaay faral di fàttali sax di wax mbokk yi nit ñi li ñuy wax compte amaana jigéen ji ku yaatu la ku mën a teral gan la ku mën a nangam la ku laabiir la foo ko fekk mi ngi reetaan mi ngi waxtaan ak nit ñi nit ñi yooyu la ñuy sukkandiku naa diw de jigéeni saykat la jigéen ju baax la fekk nit ñi loolu ñu wax kontu maanaam li lislaam wax moo kontu moo tax tomb ak ñaareel bi mooy ñu bàyyi xel ni mooy man ba'u salaax balluwaay bi nga xam ni fa la nit di ballee ñu ne ko ku baax nga mooy moy ci alquran ak moy ci sunna gis nga jigéen nu mën a mel ak nu mën a mel ci sëyam su fekkee moyul ci alquran ak sunna na yëg ni mbaax gi nit ñee ko koy waxal rek waaye loolu bu mu kontu fa lislaam bu dee ci alquran suñu borom dane inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwa alquran day jubbanti di gindi jëme ci li nga xam ne mooy li gën a baax lépp lu ñuy sàkk rek la ca gën a baax ci la alquran di orienté nit ki bu dee sunna yonent bi sallam gis ngeen xadis ba taraktu fiikum shay'ayni lan tadillu ba'dakuma bàyyi naa ci sama gannaaw ñaar yoo xam ne bu ngeen ko jàppee du ngeen sànku benn bi mooy téere yàlla bi bi ci des mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ci tàmbali boobu ci laa doon ubbee ngir ñëw ci xolab mawdoo mi ñu tax a jóg mooy sifaatu zawjati saalih melokaan yi nga xam ni day jigéen bu ko yoree nanu yëg ni jigéen ji jigéen ju baax la nanu yëg ni jigéeni sëykat la nañ yëg ni jigéen ju ragal yàlla la su dee jigéen ju amagut borom kër la kooka warees naa mën a daw jëli ko su dee jigéen ju ko am ba noppi borom këram war na ko gën a téye ci ay loxo su dee góor gu yore ay njaboot la yuy jigéen war na caa tàmbali nag yar ay njabootam su fekkee way ju mu jigéen la it war naa commencé jooyante ak njabootam ca loola maal asaf même ñi fi jiitu woon sunu maam yi sunu yaay yi même buñ jànguloon l'islam sax amoon nañ benn phénomène bu baax buñ doon def léegi dafa mel dafa xew yi mooy famille boo fa demee ki ñuy tuddee bàjjen daf doon jouer rôle bu am solo boo xam ne moom bii kiif kiif la bàjjen mooy kooku nga xam ne mag mu dem ba dikk la sëy ba xam li ci sëy gis lu bari romb lu bari gis ñi tekki gis ñi tekkiwut gis ñi daan foyee seen borom kër fañ mujj gis ñi daan fonk seen borom kër di leen sukkalaka tër bi fan mujj ah mu nekk kuñ war kooka ku mosaan a am jafe-jafe ci famille boo ñëwee ci moom bu la xelalee ba bàyyi rek day mel ni paaka bu ñu daasaat rek dugalaat ci mara mi kooka bu ko mosaan a jege jigéen bu mosaan a xelam ne ci fay wala yu ko yu ko nun boo waxtaanee sa xel dutul xalaatal lu mel noonu da ngay dellu sëb say tool kooka jigéen ju mas a fay fekk ko ci kër boo yegg say rek du la may foo yekkee sa naka da ngay delluwaat kooka jigéen daana am jafe-jafe ci biir néegu sëyam sax da ko koy ragal a wax ndax même bu amee dëgg sax day xam ni kooku du ko faral waaye boroom kër ga lay faral lii may wax nii bu ko gone yu xamut mag ñi xam na amoon na fi dafa commencé xew léegi léegi bi mu xewee te bàyyi bokkatuñu rôle boobu duaat yi waxtaaneetuñ lu mel nii yaay yi defatuñ ko lam nu jural mooy lam doon defar lépp fi mu ne mi ngi tàmbalee toj mi ngi tàmbalee yàqu kon jàpp naa lii musaahama la bu rëy boo xam ni nu ngi ñaan borom bi mu defal nu ci tawfiq li ci nar a génne ci ay njàngale suñu borom barkeel ko mën nañ koo jëfe la ci njëkk ci melokaan yi jigéen yi sëykat mooy la yàlla wax ndax alquran ay jiitu ci lépp te insha allah tom bu ñu indi am na tegtal ci alquran moo xam tudd nañ ko moo xam romb nañ ko jàll ndax waxtu suñu boroom day wax ci suuratu nisaa fa saalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lil gaybi bima xafiza allah melokaan wu màgg nga bu alquran njëkk a joxe ci suuratu nisaa ci laay fanweer ak ñeent suñu boroom mu ni fa saalixaatu jigéen ñi saykat dëgg jigéen ñu yiw ñi fa saalixaatu jigéen ju yiw qaanitaatun jigéen juy nangoo jaamu yàlla lay doon tomb bu njëkk bi ci aaya gi mooy alaaqa bi dox diggante nit ki ak yàlla bépp jigéen buñ ñu la jigéenu sëykat la te di jaamukatu yàlla l'islam reconnaître loolu lu am solo ngoog lu mat a bàyyi xel jigéen joo xam ni fa gën a tarbiyu ma ngi koy defal borom këram waaye du julli du jaamu yàlla nekkul jigéen ju yiw yëgal ne loola nit ñaa ko wax waaye l'islam waxu ko moo tax suñu borom mu ni fa saalixaatu jigéen ju yiw qoonitaatun jaamukatu yàlla lay doon mooy koo xam ni foo ko fekk mi ngi sàmmanteeg ay farataam ak ay naafilaam mooy koo xam ni foo ko fekk ma ngay góorgóorlu ci lay ngërëm loo suñu borom mu ne ca ndax xam ngeen ni ku lankal suñu borom mënta nangalub jaam mënul nekk de déedéet tomb bu am solo ngir boo xam ne mata bàyyi xel léeg-léeg nañ gis jigéen ñu ne ah diw di moom sëykat la diw de nangam moom de borom këram nee na lii moom de ay guuji peccor nga muy wax nañ nangam moom de goree nee nañ gis nga yooyu wax te boo xoolee ndaw si yow gis ko du jaamukatu yàlla jàppal ni kooku moom islam reconnaître ko loolu moo tax suñu borom ni fa saalixaatu jigéen ji reconnaître ak mbaax muy jigéeni sëykat dëgg foo ko fekk mu ni qaanitaatun jaamukatu yàlla lay doon dama fere kii wax fere nañ ko génn kon borom bi subhanahu wa taala mu ni jigéeni sëykat mu ni qaanitaat day nangoo nekk ab jaamukatu yàlla moo tax jigéen ju la gën a nangoo jaamu yàlla yëgal ni moo la ëpp cër ci bunt bi nekk ab sëykat kon loolu moo lay wan ni kon bala ñuy lijjanti diggante nit ki ak borom këram dañuy lijjanti diggante nit ki ak boromam moo tax benn borom xam-xam bu xeeñ dafay wax ni bépp jigéen joo xam ni fonk ga nga war a fonk sa borom ak ni nga ko war a jaamoo tarbiyo ko defoo ko mu ni saa bu la ko nit ñi waxalee ci sa borom kër it loola contre l'islam moom déggut loola. ñaareelu tomb mooy silatuha bi baaliha lam séq ak borom këram mooy xaafizatun lil gayb day sàmm kóllëre sàmm lu fàddu ci borom këram ay ji li ma ci yéen mooy prés da nga seet diggante nit keeg boromam suñu borom dani jaamkatu yàlla rek mu jeex waaye boo gisee relation yi nit ki séq ak borom këram nag ba ca lislaam taamu présenté ko ne bii moom doy na mooy xaafizaatum lil gayb mooy day wattu borom këram ci boppam bu fi nekkut wattu borom këram ci alalam wattu borom këram ci ay def defam ak i dugg-duggam ak i génn lépp lu fàdd loo xam ne sa borom kër fekkewu ko ndaw si moom bu borom këram fàddoo sedd gi muy sedd borom bi cër mooy waral day mel ni borom kër gaa ngi teew gis nga jigéen ji la gën a mën a sàmm loolu moo la gën a nekk sëykat ndax la koy waral mooy am na ñoo xam ne seen ak góorgóorlu góorgóorlu mooy seen borom këram bi teew waaye bu seen borom këram fàddoo ñoom seen ak góorgóorlu jeex na kon qaanitaat mooy taxaw ci farata yi sunna yi waaye xaafizaatun lil gaybi bi ma xafiza allah mooy mbir yi nga xam ne suñu borom da koo wattu ko sàmm mooy ndaw si du sàggan ci boppam du sàggan ci alali borom këram te it sekkere yi dox ci digganteem ak borom këram ci ñoom ñaar lay yem gis nga bépp jigéen joo xam ne melut nii bu ko nit ñi joxe ne jigéen yi saykat la it rombal jàll yow bul ko compte ndax lislaam moom compte bokk na ca la koy firndeel di wane ne déggal borom kër gi kat lu suñu borom jox fulla la mooy xadisab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xadisab abi hurayra mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida sallat il maratu xamsaha jigéen joo xam ne julli na julli juróom yi na mu waree wa saamat shahraha mu woor weeru koor nam nañ ko ko santee wa xassanat farjaha mu téye boppam ba du caaxaan ak beneen góor amul góor du am accès ci moom ku dul borom këram wa ataat baalaha mu topp jëkkëram ci lim koy digal yent yàlla bi nee na dañ koy wax ni ko daxalati ah da boobaa daxalatil janna daxalat min ayi abwaabil jannati shaa sunu borom danaa ko buntu àjjanaa ngi yi de yépp yépp lañ ubbi yow nag yaay tànn buntu bu la neex rek fa ngay jaar tàbbi àjjana allahu akbar mbokk yi gii garanti day góor amut gis nga xol nim toll ci yëg yàlla ak ngëm noonu lay toll ci dégg texte yi ci alquran ak sunna loolu mooy lan mooy amaan na lii noonu buñ ko déggee sax duñ ko jox benn yitte ba waaye ñu njëkk ñi nga xam ne seen defaru moo gën a mat suñu defaru ñoom bu sa bu musaan a dégg lu mel nii teg su yu mel nii dañuy teqali ko seen sago jigéen bu jullee julli juróomam nga ni waaw mu ni mu woor weeru kooram nga ni waaw mu ni mu sàmm boppam nga ni waaw mu ni mu déggal borom këram xoolal mbir yoo xam ne mépp sax juróom soo ko doon wàññi tey sa juróomi baaraam yi du fees ñeenti mbir la yonent yàlla bi nee na bu ko nit ki sàmmee dañ naan ko tàbbil ci àjjana ci ban bunt nga bëgg a tàbbi rek ñu jaarale fa borom loolu jàpp naa ni mbokk yi jigéen ju ko dégg day su dee ngëm yàlla am na wàccuwaay bu baax ci xolam la muy tàmbalee yittewoo mooy léegi nag lan moo tax ma fonk julli fonk woor ngir jëm ni loolu cërëb suñu borom la sàgganee topp sama borom te moo ne fa la yàlla liggéey ngërëm boo ko toppee foofu la lay liggéey ngërëm boo toppee sa borom kër gis nga moo tax ñàkk fiq ci diine dafay yóbbee nit ki ay jël yu rëy rëy ndax ki nga xam ne mi ngi sàmmoonteeg julli nga xam ne yow moom wax dëkk yàlla loo sàggan sàggan sàggan ñi ma woo sàgganee julli loo sàggan sàggan ñi ma woo weeru koor jot nga bañ a woor waaw xoolal jigéen ji yooyu fa mu ko teg ak ni mu ko kaweelee xanaa xamul ni fan ko santee loola diggee ko fa yiw fi lañ ko santee sàmm boppam ak déggal borom këram diggee ko fa yiw loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax maanaam topp sa borom kër déggal ko te war a moom ñu julli ci yow julli lan moo tax léeg-léeg ñu fekk ñaar yoo xam ne ñoom la ñu yoonalandoo ñu tolloo martaba ba pare ñu yëkkati benn bi wàcce ba ca des fan yoonalee nga julli ñu fay la yoonal fa nga woor ñu fay la soo fa lañ la waxee nga topp sa jëkkër ñu fay la kon saa boo watee gaal gi boor yëgal ni dese nga amul dégg ci diine loolu li ma ci bëgg a wax ci gàttal mooy jigéen dina yëg ni topp borom këram valeur bi mu am moom la julli am moom la woor am soo noppee nag yow sa seet nag bopp yaay seet nag bu la neexee nga yëkkati bee wàcce bee waaye yooyu moom lañ tollale ci sa dund kon jigéen ji war naa bàyyi xel bu baax rawatina jigéen ji nga xam ni dafa bëgg lal ak laytaay bu gën te dëgër ngir fonde ab société boo xam bu yàlla di gërëm la te mi ngi tàmbalee ci doom ak borom kër ak soxnaam mu xam ni déggal boromam subhanahu wa taala mooy tomb ba ca jiitu waaye déggal borom këram mooy ñaari tomb ba ca topp bokk na ci yooyu mooy nit ki mu yëg ni sàmmonteeg julli juróom yi sàmmonteeg woor yi sàmmonteeg jaamu sunu borom yi yooya mi ngi tolloog déggal borom këram waaye mi ngi tolloog nangul ko ay ndigleem wàcc ay tereem bokk na ci tomb bu jafe mooy wax xafidat farjaha mooy mu sàmm boppam gis nga jigéen moo xam am na borom kër moo xam amul borom kër buñ ci manti doon na yëg ni sàmm payam ci boppam dafa bokk ci li koy jox valeur bu benn góor di góoru jàmbur am accès ci moom moo xam laal ko moo xam jege ko moo xam jonjonteeg moom moo xam yum ci mat dafa kay nga yëg ci ñi gën a mag muy mooy yàlla ya kon ab balluwaaye ngoog boo xam ni jigéen ñi war nañ cee bàyyi xel mooy nit ki fexe ba am ngërëmal borom këram ndax loola mi ngi tolloog jaamu yàlla yi nga xamante ni moom moo gën a rëy loolu nag wuuteeg lool nit ñi li ñuy gën a fonk ay matériel yi àddina naa am lii naa am lal naa am lale fekk yooyu am na yi ko gën a am solo yi ko gën a am solo mooy sama borom kër gërëm ma ndax matériel yi àddina yooyu boo ko dajalee tey taxul nga tàbbi àjjana déedéet taxul nit ki tàbbi àjjana waaye ngërëmal suñu borom moom saa bu ko nit ki amee la ko julli di jural muy tàbbi àjjana moom lay am kon mi ko dina ko amee ci topp borom këram bokk na ci lay wane déggal borom kër mooy fexe yombal say mbir yépp ci sa borom kër tàmbalee ko ca commencement ba nag yonent yàlla bi nee na xayru nikaaxi aysaru sëy bi gën ci sëy yi mooy ba ca gën a yomb kon bépp sëy boo xam ne ba muy tàmbali joxe nañ ca alal ju dul jeex boobu sëy daal wax dëgg yàlla mënoon naa gën a baax yent yàlla bi nee na a'zamu nisaai barakatan aysaruhunna mu'unatan wala ma'unatan jigéen ji gën a barkeel ab sëy mooy jigéen ji nga xam ni moom la ay waru garam gën a néew xoolal boobu échec rek nga xam ne ki day tàmbalee soobu ci néegu sëy rek échec xaat xam nga aw yoon kay boo départ rek jàdd ko kay yow xam ne doo yegg fa nga jëm jigéen ji nga xam ni warugar yin waral ci moom dañ ko yombal loola day waral yàlla def participation participation barke loola waral yaay yi xam lu mel noonu bàyyi yi tamit xam lu mel noonu bu njëkkoon gis ngeen nit ñi niñ daan yombalee sëy da ngay gis koo xam ni sa waay du am dara waaye diina jag ngëm yàlla ga moo koy may soxna da ngay gis koo xam ne mokkal alxuraan moo ko may soxna kee am xam-xam moo ko may soxna kee mën a dem jàkka moo ko may soxna maanaam nit ñi dañ daan xool ba gis say jikko yu rafet ak say mën a jaamu yàlla ñu may la soxna léegi nag moom say poche yu diis wala say biir wala say kër wala say nangam mooy tax ñu may la soxna moo tax keroog ba yëf yee gëj a am keroog la barke bi di am kon bokk na ci melokaani jigéen yiw mooy jigéen joo xam ne day déggal borom këram loolu tomb la mais yeneen tomb yu koy laalaale mi ngi ci biir insha allah ñaareelu tomb yi ci wane ne jigéen ji jigéeni sëykat la mooy jigéen lay doon joo xam ni foo ko fekk mi ngi foglu di bàyyi xel seytaane lu gënaawa moom mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani seytaane mi ngi teg pinyaanam ci ndox su xëyee dafay yabal ay soldaaram ni leen dem leen ngeen yàpp ku ñëw wax ko njombe gi mu def mu ni ko waaw góor ba kenn ñëw ni ko fexe naa ba teqale diggante jëkkër ak jabar seytaane kontaan ca kooka ni ko ant ant yow yaay waaj yow tey yaay ponkal ant ant mooy yaay ponkal tey loolu li ni ciy déggee mooy kon saa suñu xëyee suba seytaane yabal na ay junni junni junni soldaar pour ñu dugg ci suñu biir kër yi pour teqale noog suñuy soxna jigéen ñi nañu yëg ni saa suñu yeewoo seytaane yabal na ay junni junni soldaar pour teqale leen ak seeni borom kër jigéen ñi say kër dëgg saa su yeewoo rek mi ngi préparé loolu préparation boobu jigéen ñu bare bare bare xamuñ ko sax ba di ko def su ko defee loolu waral na imam Ahmas nee na gis nga bu waa ji dikkee ni ko fekke naa ba dikka jëkkër ak jabar yàqoo nee na da koy kot jege ko toogal ko fa mu toog ni ko yow mii nag yaa def liggéey bi tey mooy yow mi teqale diggante jëkkër ak jabar foofu nag jëkkër ak jabar dama cay yitteel rek moo tax ma tudd ko waaye tekkiwul ni jëkkër ak jabar tax a jóg baay ak doom jëkkër ak jabar yaay ak doom xarit ak xarit ay wóllëre ila axiri maanaam bépp ànd boo xam ni ànd ak séentu lañ ci yàlla seytaan da koy bëgg a yàq waaye xam ngeen ni ndax xam ngeen ànd bu gën a dëgër diggante jëkkër ak jabar kon ànd yépp bi ko ci gën a yitteel mooy diggante jëkkër ak jabar ndax xam na ni yàqu googa yeneen i yàqu da cay topp xam nga xaritoo mën naa yàqu après la cay yàquwaat du bari waaye gis nga borom kër ak soxnaam su teqali koo am gore yi am ca wàll doom ci am doom yi doom yi am ci wàll mbokk yi am ci wàll say frère am ci wàll moom ay frère am am ci wàll say sœur am ci wàll ay sœur maanaam mbir na moo xam ne boo seetloo teqalikoo yi moo ci gën a garaaw moo tax seytaane moom lay gën a yittewoo ci ak yàqam kon jigéeni sëykat dëgg bokk na ci ay melokaanam mooy day bàyyi xel porte yooyu ko seytaane mën a yàqal léeg-léeg jigéen wax loo xam ne fekk seytaane moo ko ko wax loo fekk dafa seytaane moo ko bëgg a yàqal léegi sa borom kër ñu la toogal wala toogoo nga daal def mu fépp mer gis nga borom ndoll yu sew sew yi saa bu yegsee rek jigéeni say kër dëgg da ciy bàyyi xel day xam ne borom ndoll yi yëpp benn bu ci nekk occasion la pour seytaane yàq sama diggante ak sama borom kër bokk na ci la koy dimbali nag mooy muy ñaan yàlla waaye muy def tax say naat yi buy génn dem marché du fàtte ñaanu marché jigéen sëykat noonu lay mel buy génn këram day ñaan ñaanu génn kër buy dugg waxi nopp buy togg waxi nopp buy ànd ak borom këram dana ñaan ñaanu sunu ba allahuma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana maa razaqtana yent yàlla bi nee na ñaar ñiy ànd buñ ko waxee ci sëy doom ju ñu am seytaane du ca am waal ak boo seetloo tey lu néew ci ñi koy def kon bokk na ci buntu yi nga xamante ni maanaam jigéen jiw da koy bàyyi xel mooy fagaru ci yi nga xamante ni mooy pexe yi seytaane mën a def ba mën koo yàqal digganteem ak borom këram boo seetloo ndeysaan léeg-léeg da ngay gis seytaane jaar ci diggante yàq ñooña teqali ko sëy ba tas na doom ya tasaaroo na askan yi kenn ku ci nekk yaa nga jàppal xëyan sa morom fekk na lépp liggéeyub seytaane la waaye càgganteeg jigéen ji la parce que dafa waroon jël ay matukaayam ci noonam defu ko su ko defee ci bunt boobu boo seetloo seytaane ñii jigéen ju yiw ji di bàyyi xel ku jar a bàyyi xel la xam nga lu ko waral mooy boo seetloo société àddina bi da ngay gis ñu ne am na cinquante ans d'expérience nit ñi ñu ne ah kii de kon moo wax dëgg yàlla am na cinquante ans de ku ko am expérience ci nangam kooku moom ngand la waaw iblis moom caay-caay gii muy def expérience bu ci am ñaata junni at la ñaata junni at xoolal yàlla ba mu sàkkee bàyyi aadama wàcce ko wàcce walla iblis ba tey ñaata junni junni junni ci ay at moom expérience bi mi ngeeg moom bariwaa na ñu mërmel am na ñu jaaxaanal ñii mu tas seen sëy ñii mu jax seen si diggante ñii mu tuurante seen i deret kon màggat mu mënut caay-caay la kon jàpp naa ne jigéen ji yu bàyyi xel gi mu koy bàyyi xel kooka ci buntu yii wane ni moom ñii kat nar naa nekk jigéen sëykat su ko defee ci buntu boobu léeg-léeg seytaane da lay dikkee ci wax léeg-léeg mu dikkee la ci tontu léeg-léeg mu dikkee la ci ñu digal la nga bañ léeg-léeg mu dikkee la ci ñu ñu tere la fekk léeg-léeg léeg-léeg xam nga nit ki mën nañ ko wax sax bul dem seytaane ñëw naan ko waaye yow kii da laa jur kii da laa moom mën na laa takk mën a dina teqale say doom mën nga saa boo ne damay dem doo dem yooyu mun a seytaane fekk xam nga min sharri waswaasil xannaas alladi yuwaswisu fii suduuri naas mooy da lay bàyyi ba nga wéet yuwaswisu mu commencé ñëw nag waaye kii da laa moom kii da laa yuwaswisu mooy xadi xadiisu nafs day jékki-jékki di la wax ci sam xel waaye kii dalaa nàngam kii dalaa nàngam nàngam waaye sa morom yi dugg na fii génn waaye kii yaa ko may sax lim nekkee gis nga yooyu seytaane di la ko wax dawal te nga xam ne saay-saay bee saa bu yu mel noonu yegsee ina inna alladina ttaqaw ñi ragal yàlla dëgg ida massahum taifu min alsheytan tazakkaru saa bu leen seytaane naree gëf rek pexeel leen rek ñu fàttalikuwaat njàngale yi comme lu mel ni waxtaan yu mel nii wala aay yuñ tafsiral wala xadis yuñ jàngoon saa bu lu tolloo ci occasion yu mel nii rek sa xel dem ci la ma déggoon di wax ko wala suñu borom wax ko wala yonent bi wax ko wala borom xam-xam ba wax ko loola daan lay delloo si waat soulagé waat la ci li nga xamante ni mooy say def-def kon bokk na ci melokaan yi nga xam ne daañ ko tànnee jigéen yi saykat dëgg mooy idxaalu sururi ala zawjiha ida nazara ilayha jigéeni sëykat dëgg jigéen lay doon joo xam ni foo ko fekk mi ngi préparé nan lay dugalee mbégte ci xolu borom këram loolu waxu yonent bi la sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla bi nee na dañ koo laaj xadis ab abi ibrahim ñu ne ko ayu nisaai xayr waaw jigéen ñi nga gis jën jigéen ci gën mu ni allati tasurruhu ida nazar mooy jigéen joo xam ni saa boo ko xoolee rek da ngay kontaan xool sa soxna kontaan nag jigéen ñi nañu xam ni du mën a soloog mën a summee koy indi ndax bët du kontaan bu tey kontaan luy kontaan ah xol xol mooy kontaan maanaam bët ndaw la da nga koy yónni gis nga soloog summi ci jumtukaayu kontaanloo borom kër la waaye jigéen ji kontaanloo borom këram xam ngeen muy jigéen jar mooy jigéen ji safe jigéen ji safe safaan baykat jigéen ji soof gis nga jigéen joo xam ni saa bu ko borom këram xoolee kontaan joojaay jigéen ji safe jigéen joo xam ni saa bu ko borom këram xoolee du kontaan joogaay jigéen ji soof te it nag safe gi la koy maye du soloog summi kese ah waaye la koy maye dëgg ay jëf la yuy kontaan loo xol waaja nee na soxna si xudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi thawrati xiina agdibu wala tan tan tanqurini naqraki dufi marratan fa innaki la tadrina kayfa almugayabu ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى ويأبك قلبي والقلوب تقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب wax ju am solo ngoo waa ji mu ne danañ waxtaan ak soxnaam benn bis mu ne soxna sama mu ne ko naam ko gis nga lépp loo gis mu bàyyi ko ci man sa borom kër di ay erreur wala ay def def te neexu la baal ma jéggal ma ñu romb jàll bàyyi bàyyi la nu mu jàll ndax góor ay sarsam dafa bari léeg-léeg kon mën naa jàdd kon jàppal ko ngant ci sarsam yu bari nga di ko pardonné lu bari gis nga loolu soo ma ko defalee waajee wax sama sa mu ne gis nga loolu soo ma ko defalee cofeel gi ma am ci yow bëgg la day gën di continuer te saa su ndax xam nga dara gënta neex nga juum nit ki yëg ni juum nga ba noppi mu baal na ko xol bu sedd guñ ngeen continuer loolu day rusuloo góor mu ne ko wala tantiqi bul ubbi sa gémmiñ fii thawrati xiina ardu soo yëgee ne damaa mer bay wax daw rek ma wax ba sama xol seen waaye bul tontonteeg man bokk na ci li gën a mën a merloo góor mooy jigéen juy tontu jigéen ji gën a forox làmmiñ mooy jigéen ji gën a mën a tontu moo taxit moo gën a tëlee jur doom yu baax lii may wax nii nag expérience ab xam-xam la xam-xam waaye doy ni ci kese doom mu ni soo yëgee ni mer naa maa ngi wax bàyyi ma wax ba giifal nga bàyyi rek ndax loolu mooy nangu ak kilifteef bu njëkkoon nga daan gis jigéen joo xam ni borom këram da koy tiim sa way wax ba sàmbaar ah man de maa ngi jéggalu man de baal ma ak su ma ko xamee woon ni loolu rek waaye du wax benn baat waaye tey moom yaakaar naa ni gis nga jigéen ñi am na ci ñoo xam ne buñ la tontoo boo amee randal di nga ca dugg su ko defee yooyu day màtt xol gis nga yu mel noonu nag léegi góor gi day màtt xol léegi bokk na ci danger yi gis nga gudd yu mel noonu gis nga jigéen bu yëgee ni merloo na borom këram sax woote nangu borom këram di sëyeeg moom lu dangereux ngi noonu gis nga tey ci ci misaal tey ci ngoon gi nii nga joteeg sa borom kër bëgg xanaa leen nga fexe ba kontaan loowaat ko waaye fii mer moom a ngi ci moom giifut loola sëy ci sa borom kër sax wóoru borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam sidit ci boppam dafa foor te it doomu aadama ci sidit lay sëyee deret day daw ci moom te deret bu bu fekkee nit ki dafa mer sidit yuy jub yooyu ay xeeti mbir la yoo xam ne bi ñu ko seetloo nit ki bu ci amee doom bu ko yàlla dimbaliwul dëgg doom jamono bañ a mel na mu bëgg yu bare bare ngi nii tey da nga koy séen ci kaw rek du mu xam lu ko waral fekk affaire yaa nga ca reen ya faw nga gastaat wa mu ni ko wala tantaqi fii fawrati xiin ardum su ma meree fexeel ma ma kontaan loo bul ma tiim di ma fëgg di ma sonal di ma teg ay jafeñ-jafeñ nga xam ni góor goo xam ne yàkkam ci wut a wàcc sax dem këram ndax problème yi dul jeex mu ni bul ma ko def wala tanquri naqraki dufi ma bul ma tiim di ma kañet loo mel ni borom tam di tiim ko may fëgg fa innaki laa tadrina kayfa almughayyir mu ni tey dama xëyoon xamoo la fa ma demoon xamoo arsala nañ ma xamoo jànni nañ ma xamoo taraxis naa daanu xamoo la ma doon wuti jot naa cam jotu ca xamoo ndax dépassab suba mi ngi ci sama poosam gis nga léeg-léeg da ngay def góor lu ñàkk fayda sa waay mu mer ca bay fulfuli fekk moom sax li mu mer jërul dara waaye problème mooy dafa am lu ko jiitu maanaam moom buntu merukaayam daa chargé wu woon ba des un pour cent xaw ma xam ngeen li ma wax xam de maanaam góor léeg-léeg day mer meree feneen chargé mer nag ba dese un pour cent benn baar wax mu ne benn baar mu dese benn baar nga xam daanaka fees na gis nga benn wax bu ñàkk fayda bu jarul mer la ko soxnaan di wax rek mu jëfur foofu yépp même moom bu paree dana xam ne moom lii mu doon coow jarul coow waaye jigéen ñi nag gën nañoo mënante foofu gis nga jigéen ji ñor dëgg dëgg dëgg mooy jigéen ci xam borom këram koo xam ne boo nekkoon jàkk rek xam kii tey dafa amul metti wala dafa sonn wala dafa jaaxle wala weer wee sori yooyu yëpp day jëfandi ci góor gi de laaj leen daay xam naa li ma leen di waxal arrangé na leen lool de loolu lépp day feeñ ci ci ci nit weer wu sori day feeñ ci yow ah ñàkk dépense day feeñ ci yow am ay problème day feeñ ci yow lijjanti sottiwut day feeñ ci yow yaakaar ni tey laay fayeeku sax dem ma yegg fayeeku woo day feeñ ci yow gis nga yooyu nag maanaam jigéen ji bu fekkee jigéeni saykat la dana la accueillir accueillir noo xam ne noo ñëwee te gis nga jigéen dëgg dëgg moo war a nekk expert na expert mooy saa bu xëyee rek su ma nee jàpp ku góor ki danaa xam kii ban genre la defe naa am na qissa bu mooy faral dégg xaw ma xasanul banaa lañ koy nit ci xaw ma kenn ci borom xam-xam yi di wax ne yaayam da ko doon wax ne saa su ma yeewoo xool la rek damay xam ndax tey lislaam mi ngi ci jàmm wala amul jàmm mu ne ko noo ko xam mu ne su ma ko xoolee gis kanam gaa ngi triste xam ne dafa déglu information xam ne jullit ñi tey am nañ problème waaye su ma ko xoolee gis kanam gaa ngi bélbéli rek mais damay xam ne kii moom dafa déglu information bu neex noonu la jigéen ji war a mel ni expert maanaam borom kër gi saa boo ko xoolee rek war a xam lu xew waaye déedéet am na koo xam moom dëkkaatanut sax bay lijjanti loolu faf moo tax it jël yi ñuy am ci boobu di daanu di di di ca daanu kon jigéen ji war naa tàmmal boppam déggal borom këram nangul ko ci lépp ay ndigleeg yépp waaye mu bañ a nekk jigéen ju rëy wala jigéen joo xamante ni boo koy sant muy fuñ fuñi ndax santaane boo xam ne da ngay fuñ fuñi doog koy def xam nga ni safut kala ko sant amut neexit déedéet waaye gis nga nit ni muy tarbiyoo ci sayxa bi koy jàngal nu ko raw noonu la jigéen war a tarbiyoo ci borom këram nu ko raw noonu la jigéen ji war a tarbiyoo ci borom këram ma al asaf shadid léegi dañ lay wax ni sa moram laag sa nangam laag sa nawle laag ila axirihi fekk déedéet du sa morom de waaja nee na dañu soxna si ba mu ba muy dénk doom bi dañu ko soo demee nekkal daal la mu ni tong ci sa kaw nekkal kawar mu nekk mbaxane tong ci sa kaw nekkal ndab mu ñëw kubéeru tëj ci sa kaw nekkal suuf mu nekkal la asamaan noonu lépp dañ koy def mu nekk sang loolu moo waral gis nga ci bit loo borom kër nit ñi bu njëkkoon boo seetloo daanaka nit ñi daawuñ sàllalu sàllalu seeni borom kër bu njëkkoon yaru mag gi daawuñ sàllalu seeni borom kër déedéet saa ndijaay saa allaaji bi sang bi saa njaatige sëñ bi sama kilifa gi maanaam façon baat yoo xam ne day wane ni kii moom ku mokk rumbux la waaye lew léegi tey bu la ko woyee sax sa fidu danañ tuxib yow xam nga yooyu lii du ay mbir yoo xam ne ay nit a ko keree lii mooy lislaam lii mooy lislaam lii ñoo ñii doon def ndax dafa bokk ci sunna jigéen di bañ di sàllaw lu borom këram parce que loolu dafa bokk ci suul adab mooy ma ñàkk yar su ko defee yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam jigéen ji nga xam ne moo gën ci jigéen ñi mooy koo xamante ni boo ko xoolee kontaan boo ko digalee mu topp la mu def gis nga jigéen fii yëpp li ko borom këram digal dug mooy yàlla da ko war a def fii yëpp dug mooy yàlla laa wax da ko war a def waaye nag tey moom góor ñi xam nañ ni daanaka maqaama jooju mu amuñu ko moom moo tax it la ma doon wax ca waxtaan woowa di wax ci lan moo tax jigéen ñi mënatuñoo jur yu baax yii bokk na ci facteur yi tax jigéen lan bëgg nga xam ngeen ne chance bi jigéen am pour jur lu baax chance boobu góor am ko parce que jigéen mooy yaay mooy nàmpal mooy gën a yàgg ak xale bi reen yi moo koy moo koy suuxat maanaam formation première formation bi moo koy def ci xale bi kooku chance bi mu am pour régler situation sëy génn imaam génn borom xam-xam génn kilifa diine loola góor amu ko yéen a ma gën a xam ne xam ngeen ni tànnikat yi soxna yi dëgg dëgg dëgg taamuñ bàyyi defe naa xam ngeen loolu tànnikat yi sox d'accord dinañ ko tax waaye nag taxul bàyyi taxul noo jug de maanaam bañ doon tànn soxna bañ naan jigéen bi bala nga koo labat visel kuy yaayam xam nga ni visel kuy yaay waaye visel bu doon ko koy bàyyi doom kon yaa sa waay affaire yi dana baax ndax bàyyi yu bari yi mën nga am bàyyi joo xam jàmbaar la léeg-léeg nga am bàyyi joo xamante ni jàmbaar la waaye yaa ja day fa tabarakallahu salaam xaaliqin gis nga kon la ñuy viser jigéen ji la pourquoi bàyyi di jàmbaar yaay di jàmbaar ñu ñëw di viser yaay bàyyi bàyyi pourquoi bàyyi nekk ab waa joo xamante ni ab waya waya wala nii la waaye yaay di nekk jàmbaar dëgg ba pare ñu taamu doomam pourquoi bàyyi nekk jàmbaar loolu yaay ji nekk ab waya waya ba pare nga lànk bañ faa dem lu tax parce que da nga xam ne reen yi dëgg ci yaay ji la ëppee jeexintal ko ca bàyyi ji kon déggal ko bu la santee loolu nag tey xam nga dañoo toll ci jamono xoma mondialisation xoma égalité góor ñeeg jigéen ñi nañ yam ak fu góor taxaw jigéen war na faa taxaw ëppalin góor gis nga yooyu te kaay ma xamal la ñaar nag même boo ci lekku ci xet gi dana la xeeñ de xaw ma xam ngeen li may waxam de gis nga yàpp mbaam xoox wanuy togg fee gis nga soo bëggee mucc ci tereb suñ borom soril fan koy taaleeg xet ga ba mu la xeeñ soreel rek moo gën a wóor waaye gis nga ñun fi mu ne société bi ñuy dund même suñuy jigéen buñ gëmut loolu fi mu ne nii mi ngi def ci jeexintal ci ñoom min xaytu yadruun aw laa yadruun lu tax ah yow nee nga lii baaxut doo ko lekk ba pare ñu ngi koy toggut sa pegg affaire baa ngi lay xeeñ ngay mel a sikk rek yaa boo ko lekk doo ko tey ñu ngi def ay jeexintal parce que jigéen ñi dañuy dem ba maanaam fullaal gi ñu waroon a fullaal seen borom kër dëgg dëgg dëgg defatuñ ko lu tax parce que chaque jour yaa ngi théâtre kat yaa ngi koy théâtre film kat yaa ngi koy film rajo yaa ngi koy wax journal yaa ngi koy wax dem nañ ba léegi góor ñi meetu la dóor soxnaan ndax boo dóoree ñu ne léegi tey góor la jigéen la ñuy gën a faral yooyu day dem ba jigéen ji daf koy may fit da koy may fit léegi fit woowu mu koy may nag su booxum jigéen ju am fit jigéen ju am fit du jabar te déedéet gis nga yàlla dafa sàkk baay aadama def ko mu nekk boobu bu dëgër ah épaules yi mel na mu war a mel mu njool ca kaw nekk góoru xale lu góor nekk xale lu góor ah njool ca kaw mel na mu war a mel rafet ah xuural baatam génne bu ni fii mu ni fàtt saxal ko ay mustaas nga xool doole ji mu ni kii kii yooral ndax day ndax mu saf góor gis su loolu amee day saf góor gis nga góor su melee nii rek saf góor waaye góor bu yorut melokaan wii dootu safati góor jigéen lay saf borom bi jël jigéen nooyal aw yaramam simplal ko def ko mu nekk koo xamante ni yuy góor di am yu bari amu ko saxul sikkim saxul ay mustaas parce que yooyu yëpp dafa góore gis nga yi góore saa bu nekkee ci jigéen jigéen jooju du mën a sëy ya jigéen su nekkee ci góor góor gëmatul jëkkër saya boo mu woon kon yooyu jigéen ji bàyyi ko xel xam ni moo xam ca kontaan loo borom këram ca na muy solo ca wax ya muy wax ak moom fexe di idxaal surur lañ wax dugal mbégte ci biir xolam léegi nag kooku ku nekk yaa xam na ngay tojee sa bopp janax islam néew lii de ku ne yaa xam ne dañoo sa bopp janax nan lay fexe ba kontaan loo saa waaj kenn ku nekk am na lu mu gën a bëgg am na lu mu gën a bañ naka ngay fekkee koo xamante ni gaañ nga ko ci xol gaañ ko ci xol ba xol baa ngay carala di di di di di di nàcc ah ngay dem di wuti loolu mënul nekk déedéet ba ngay tàmbalee ca xol ba fexe ba am fa place ba noppi génn nag ca na may soloo ca na muy waxeek moom ca na muy jëflanteeg moom ca seetal ko la muy lekk ca la muy naan loolu sa bokk sunu salaku saalex dañ daan dénk seen doom bu ñu daan sëy sàmmal ko waxtu lekkam sàmmal ko waxtu naanam bu mu wax nga tontu ko bu mu ila axiri yooyu ay yëf la yoo xam ne li gën a mën a énerveloo nit ba mu wax lu waxu wut loolu bokk na ci war a lekk lekk war a naan naan war a nelaw nelaw demee noonu yooyu mën naa gaaw a def jeexintal ci nit soppeeku kon jigéen ji góorgóorlu ci bunt boobu ca na muy soloo ca na muy melokaanoo ca na muy waxee ak borom këram ca kàddu yu neex ya nga xamante ni xam nga ni wàcc ba pare sonn ba bëgg te yàkkamti wala sa kër loolu xam nga ni musiba la ndax bu fekkente ni yow loo doon dégg ca àll li ko gën a naqari ngay dégg ca kër ga maslaa yi ngay am ci damaa toog ba mu yàgg ma ni gis nga jigéeni hôtesse yi ak jigéen ñiy liggéey ci hôtel yi ak bureau yi ak secrétaire yi ñu ñuy neexalee ñu ñuy liggéeyal wallaahi buñ ko defaloon góor ñi tey kenn dootul jàmbatati kenn dootul jàmbatati ah yow koo xam ne simple simple patron kese la mu tàngal la café taf taf taf nga gaaw tàngal café ñëw te li may wax ñi boo ñii ci bureau yi xam nañ taf taf nga tàngal café ñëw affaire bu tuuroo sa eh eh pardon maa ngi jégaloo tey tey kii daal di fomp gaaw nu mu gën a gaawee gis nga bu paree nga def indi ko ay mouchoir tegal ko fii ah te maa ne ndox mu sedd am na jus bu amoon ci frigo bi de te te kooku leen rek ngeen séq mooy bu weer dee mu fay la sare bokk na ci sarti hôtesse yi mooy amul nikkal kanam fu ñu la fekk da ngaa war di siiñ duggukati avion yi ak ñi nekk ci biir hôtel yi xam nañ li may wax maa amul mer amul ñëkkal fu ñu la fekk da ngaa war di siiñ ah waaw ñun loo bëgg est-ce que sax nga xaar nag ci biir hôtel bi ndaw si mën a gaaw bu sa jabar bu sa dara tànkal la ndox cuuraayal la sa néeg def la jabar lépp la lay defar ànd ak message di la reyal loolu du ko góor ñu doon am seen biir kër defe nga ni xay dana amat xay du ab waaye problème mooy loolu mënuñu koo am léegi lan moo tax nit ki effort mu mën a def effort ba mën a réussir ca loola muy def ngir mu ca séentu payat patron allahu akbar mbokk yi moo tax suñu jigéen ñi duñ góorgóorlu ci lu ngi séentu ci payat yàlla maa inda allahi xayrun wa abqa la fa yàlla moo gën te day des kon loolu jigéen ñi bàyyi ci xel moo tax loolu nag bokk na ci mooy jigéen ji su melee na mu war a mel day mooy tamit nag kasaratu tasaxut wa tabarrum wa tashakki jàmbat ak jàmbatu jigéen ñi gën a soof ci jàmbatkat yi bokk na ci mooy jigéeni jàmbatkat ci jigéen ñi mooy jigéeni jàmbatkat koo xam ni foo ko fekk sama lii man de bu ma amoon lii man de diw ba ma demee lalam ba ay bu ma ko amoon bu ñu mel man de sama daal moom yàqoog léegi maanaam nit ki buy wax na wax lu tolloog lañ am aajo rek mu yem ca waaye jabatu ak jàmbat dafay gaañ xol gis nga góor bu am jom bokk na ci li ko gën a mën a gaañ mooy mu xam soxla yu mu mënta faj mu xam soxla yu mën a faj nangam ji war naa koo def gis nga war a faj fajoo daa metti de jigéen ñi xamuñ loolu nag waaye góor ñoom xam nañ ko ndax ñoom ñoo féetewoo faj war a faj fajoo dafa metti su ko defee loolu jigéen ji di moytandi ko ay jàmbat yu bari da ci da ci da ciy baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci may chance jigéen pour muy bëgg la borom këram yonent bi ne képp ku tukki bay ñibbisi bul bett sa waa kër bul bett sa waa kër rawatina guddi nee na na nga def ay jumtukaay bañ léegi moom xam ngeen téléphone yeeg yóbbante yi jot na bu njëkkoon moom da ngay ñëw yób yób yónni benn waay mu waru fasu daw waxee la ko way laa nga dem ni xaaral ma dem jaar ca jàkka ja julli ji bala ngay julli bay ñëw da nga ñëw tu- dugg ci dëkk bi dem jàkka ja bañ a dem sa kër xool l'islam wallahi mbokk yi jigéen ñi war nañu xam l'islam bëgg na leen trop mi ngi leen di may chance ñu waajal seen bopp ngir gën a am place ci seen xolu borom kër moo tax ñu terale yow ko góor gi nga ñëw bett sa borom so- soxna bu ko defee yent yàlla bi nee na ka rasoon mën a soluwaat ka ka ka ñëkkoon kanam mën a mën a màkk yowwaat defarwaat yooyu ci nga xamante ni dagal na ci mbirum biir kër jigéen tamit war nay jéem di def effort waaye jigéen joo xam ne ni xab xabaaral ni yaaj yaajcaaral rek dara du ko jéem luñ ko waxut xamul loolu loolu musiba la de te li may wax nii léeg-léeg nit mën na koo dégg jàpp ni saboote la fekk déedéet du saboote de ay nitam koy dund de ay nitam koy dund de am na jigéen ñoo xam ni sa waay danoo yàbbaarala yàbbaaral ba daanaka loolu waxul xamuñu ko comme comme comme li ko wolof yi tuddee comme sagaram menace morso menace kaay nga xam ne bu xësee tool moom fi mu ni bàpp fa la naan bàpp rek loolu baaxul déedéet jigéen dafa war di jéem a seet yan stratégie lay jaar pour am borom këram moo ne bu fekkee ragal yàlla nga ci jublu ñu la gën a ragal yàlla dañ ko doon def Aïcha radiyallahu anha benn bis yonent bi dafa tàggoo dem xare Aïcha nee na ma dem marché seet benn tissu bu rafet tissu boo xamante nii boo ko defee rideau xam naa ni góor gu ko xool dina kontaan far ndekete tissu bu mu jënd dafa am ay dessin Aïcha ñëw def dessin yi yonent bi dugg si rek seen kanam gi Aïcha ni ko ah man mooy nga kontaan doomu laa ci doon jublu de mu ne ko malaaka yërmal di dugg ci kër gu amee dessin Aïcha nee na ci laa daal di yootu rido yi xaaj ko ay xaaj defal ko ko ay ngegenaay gis nga même ba léegi sax bu bàyyi de ba léegi bàyyiwut même sànni jiw waaye ay ngegenaay la ko ko defal mu ne mu di ci mu ci mu di ci tëdd xoolal suñu biir kër yi saway rido yoo xam ni ay ponkali ginaar lañ ca dessin rido yoo xam ni malaaka yërmal du fa dugg bu ko defee yow nga bëgg a sëy sëy bu baax yow fu malaaka yërmal dul ñëw yow saway noo fay baax foofu da ngay def affaire da ngay def effort ba sonn daanaka mel ne glace bu teg ci naaj rek day seey rek dara du fee kon jumtukaay yi waral yërmande yàlla du yegg si jigéen ñi da koy fexe daax kon gis ngeen Aïcha ni mu ragalee woon yàlla waaye mi ngi doon def ay effort pour kontaan loo yonent bi alayhi salaatu wasalaam
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Thank you. Thank you. الله أكبر الله
alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain kon ci bunt boobu bokk na ci melokaani jigéen ni sëykat mooy muy fexe bis bu nekk nu muy amee xolu borom këram yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne mi ngi ci almu'jam al awsat bu imaamu tabaraani xadis boobu anas ibni malik moo ko solo xadis la bu wér cheikh nasir albani wéral na ko yonente bi nee na ala uxbirukum bi nisaikum fil janna xanaa du ngeen ñëw ma xamal leen jigéen ñi nga xam ne ñoom bu ñuy dee di tàbbi àjjana allahu akbar maanaam jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci àddina yi dund waaye ñoom ñoo nar a nekk soxna yu àjjana yi nisaikum fil janna mooy ay soxna lañ leen doon di àjjana waaye ñu ngi fii deewagum loolu de bu ko saxaaba ya musaana dégg ndeysaan subhanallah al azim maanaam yu mel ñi nga xam ne moom moo nekkoon seen objectif bi gën a rëy ala uxbirukum bi nisaikum fil janna xanaa du ngeen ñëw ma xamal ne soxna yi nga xam ne ñi ngi fii waaye bu nuy dee di tàbbi àjjana ndax ñooñu ñoo yeyoo tàbbi àjjana mu njëkk ca kullu waluudin waluudin ida gadibat aw uusiya ilayha aw gadiba zawjuha qalat hadihi yadi fi yadik laa axtaxilu bi gamdin xatta tardaa yent yàlla bi nee na jigéen ñi nga xam ni mérito nañ tàbbi àjjana te ñu ngi fii mooy kullu wadud jigéen joo xam ne juy nobe lay doon al wudd mooy nob jaala baynakum mawaddatan wa rahma wudd tekkiwul bëgg déedéet ndax bëgg mu góor da koy def moroomu góoram te góor da koy def yaayam ak baayam waaye nob baat boobu mooy baat bu ñor ba ba war a dox ci diggante diggante jëkkër ak jabar warul yem ci bëgg kese déedéet mbir mi daa war a yegg ci nopp léegi nag foofu saa problème nag bi góor gu nekk war naa koo ndax soxna nopp na ko ndi jigéen ju nekk war naa koo ndax borom këram nopp na ko ndax jigéen joo xam natt nga natt gisoo sa borom kër nopp la échec nga de maam foofu moom daanaka da yemut moom bu nopp amul moom sëg ndox bu dee bëgg doog mën na laa bëgg bëggaale keneen ak ku mën a doon waaye nag yéen ci yàlla bi ne ne jigéen juy nobe lay doon maanaam moom bu amee borom kër bu ko gëmee da koy nopp du ko nobantu te ki nit ki ki mu nob lu mu man ci bëggal ko dana ko def daanaka day mel ni kuy tarbiyu rek xam ngeen kuy tarbiyu moom li waa ji bëgg lay def lam bañ lay bàyyi mosu leen a gis kuy tarbiyu koo xamante ni da ngay ñëw def safaan ba maanaam di tarbiyu ba noppi yow lan lan bañ loolu ngay def lan bëgg doo ko def loolu mujjee su ko gis ne moom jëkkëram doo ko gaaw am moom kon kullu wadud jigéen joo xam day nobe day nob borom këram lool waluut day am ay doom loola nag borom xam-xam dañuy wax ni yàlla moo koy séddale waaye nit ci lam ca am comme cër mooy mu jub def ay sabab ca faju ci ñaan yàlla ci jumtukaay yooyu tax nit ki am loola moo cay cëram moom mu ni ida rudibat su ndaw si meree aw usi'a ilayha wala ñu ñaawal jëm ca moom aw xadiba zawjuha wala borom këram mer bu mu ca mën a doon rôle ba muy joué mooy haadihi yadi fi yadik sa loxo danaan borom këram sa loxo borom këram jox ko loxoom mu ne ko fas yéene wu ma koo teggi mbaama nelaw guddik tey lu dul danaa kontaan loolu ku ba amoon sëñ bi ah di nga saalit de ku am da nga saalit de waxuma amul de waaye xam naa ni day ah pourcentage bi bëreetut de mais danaan la jàpp loxo laa aduqu xumban tey moom fas yéene wu ma tëdd laa ak taxilu bi xam ko bët yi moom du ma ko gëm loxo bi yëpp du ma ko teggi fii ak kontaan moom lépp lu mu laaj nag te naqariwut yàlla dinaa la ko defal ngir nga kontaan léegi moom daanaka daal yaay mujj dem ba xam ni rek kilifa nga kilifa du toppante nga wàccaat góor ñu bare bare bare bi ne bu coow amee yaay mujj dem ba mu yàgg rek nga wàccaat parce que da ngay xalaat yu bari da ngay xalaat njaboot yi xalaat goro yi xalaat ni yu bari bari daal nga wàccaat waaye jigéen ji moom mu ñëw wàcc raam ci sa kanam jéggalu la bu njëkkoon yaay di dem jënd guro wala tàngal ah wala seet la nga gën a bëgg ñu toggal la ko ah jigéen ju ne am na façon yére xanaa ba mu yaakaar ni bii moom rafet na wala bi borom këram bëgg na ko mu sol booba taajee ko lekk ila axiri waaye ndeysaan ma al asafi sadir déedéet kenn ku ci nekk da ngay jaay sa morom maa la ëpp fulla su boo xum jigéen ju bëri fulla ci kanamu ci këram gis nga jigéen saa bu borom këram xamee fullaam mënta sëy su borom këram xamee mën a tonton dangaa la mënta sëy waaye sag naqari deret bu ko sa borom kër xamee d'accord naqaril deret waaye moom na nga fexe ban bu ko sa borom kër xam moom kooku mënu koo xam maanaam daal cër bi sa borom kër war a am ci naqari deret mooy dégg naa de ñu naan diw daa naqari deret man de gisuma ko man borom kër gi loolu la war di wax maanaam nit ki mën naa naqari deret amul problème waaye nag bu bu ko borom kër gi xam mën ngaa naqari ay wax bu ko sa borom kër xam mën ngaa naqari jëflante bu ko sa borom kër xam moom moom def ko ñeneen ñi la mbokk maanaam da ngay mel ni kay njëg si bi ca biti waaye nooy nepp ci sa kanamu borom kër subhanallah kon yu mel nii boo ko seetloo ak jigéen ñi nga xamee tey sa waay góor gi de boo doon mer fi ne téeméeri at dan lay bàyyi foofu rek boo boo dikk duma dikk ëppuma fulla de ah yaa mën a wëlbatiku du mooyu fane bu ma du mooyu faale wu ma la may fekk yow li ngay def ay danger yu rëy la maanaam da ngay gis jigéen joo xam ne borom këram day du mooyu mer féete fale moom mu du mooyu féete fale ma de boo dikk duma dikk waaw soob yaa gi nga xam ne gënoo ma day gënoo bàyyi ëppoo ful la fekk ndeysaan yaa ngi toroxal li nga jot a jur di yàqal li yëg seegu déedéet gis nga nag ma wax ko mu jeex nag mooy jigéen fi yëpp ñàkkut jom ci kanamu jëkkëram mënta sëy wax jàngoo xulaasatul xawl jigéen fi yëpp ñàkkut jom ci kanamu borom këram mënta sëy amal jom nag fu ne waaye sa borom kër moom bu mu xam sa jom bu mu xam sa jom bu mu xam sa fulla bu mu xam sa naqari deret bu mu xam sa dangaara la foofu saa bu amee daal jàppal ne yow kon moom xëy na am na yaakaar ne mën ngaa bokk bi ni saa yi ahlil janna bokk na ci melokaani jigéen ñu baax yent yàlla bi ne na xayru nisaikum alwadudu alwaludu almuwaatiya almuwaasiya ida ttaqina allah wa sharru nisaikum almutabarrijat almutaxayilat وهن المنافقات لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم yonent yàlla bi nee na jigéen ñi gën ci seen jigéen ñi mooy jigéen joo xam ne day am doom day nobe tayit nag almuwaatiya day neex deret muwaatiya mooy jigéen ju neex deret koo xam ne dafa neex deret lépp lu borom këram jàpp ni boo ko defoon tey dana mer bu ko keneen defoon mer waaye borom këram moom moom bokk ci moom moom bokk ci programme bi moom daal moom lu mu def baax na fii ak neex na suñu borom day neex deret lool neex a jëflante lool nga xam ne góor bu wàcce day yàkkamte ñibbi ci lool almuwaasiya day mën a soulager borom këram almuwaasiya mooy koo xam ne borom këram nekk ci feebar mbaa mu nekk ci ay problème mbaa mu nekk ci ay jafe-jafe mbaa mu nekk ci ak ñàkk ca peggam lay toog di ko trouver ay solution loolu mi ngi am de mi ngi am ba tey ay jigéen yoo xamante ni dañuy xam ne seeni borom kër ñu ngi ci ay problème ñu fas yéene jaay seeni matériel moo xam or la moo xam nangam la pour soulager seen borom kër mi ngi am de dégguma ko dama kaa xam dama kaa gis xam ngeen lay dal xabaru kal mu aayana am na góor yu ko nettali seen soxla de soo gisee may insisté ci joxe misaal yi ñuy dund wala nit koy yàgg ya mooy léeg-léeg nit mën naa bëgg a góorgóorlu seytaan ah ñooñu dañooy salafa saalex ñoom moom déggal bàyyi rek waaye moom leen a roy moom fekk déedéet am na salaf yu fi nekk fi nekk ni ñoo xam ne ca fa ñoo ne tegoon seen tànk lañ teg seen tànk ci buntu sëy am na ñoo xam ne dañuy jaay seeni or am na benn soxna boo xam ne mu xamee jafe-jafe ak borom këram ñuy waxtaan nee na ma li ma yëkkati ci sama alal jox sama borom kër ngir këram ak njabootam ak nangam man gëm naa ni bu pare woon pour fay ma ko mënuma koo fay mënuma koo fay denc naa sama xaalis mu dem mu jël wax ay wax yoo xam ne wallaay su ngay xam ne kii yàlla baaxal la nga ne ko moytul seytaane yàqal la ko nag def nga ko mën waaye bu ko yàq yow denc ko wala taqtulu amaanakum yu mel noonu mi ngi am gis nga koo xam ne ay ooram la génne ay ooram jaay ko jox borom këram ni ko demal nga yeggale sa kër ndax ñu mën faa dëkk loolu am na koo xam ne ay ooram la jaay faatal borom këram ngir daaw na tukki mission ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni tey waaw ñu xam nañ li may wax ndax ñu bari dinañ jokkoo ak ñoom ci yeneen ci masala yi nga xam ne yow da nga cay jàngale après yaa ngi jàngal nit ñi waaye yaa ngi ciy jàngale gis nga mu ne jigéen la jox day soulager borom këram bu amee jafe-jafe waaye ki gën a bon ci jigéen ñi mooy jigéen joo xamante ni mutabarrija day walaj walaj rek la waajo doon wax naan wallaaj ibni xarraaj foo ko fekk dugg ak génn rek benn mbokk laa mas a gis mu am ku mu ko tuddee mu ne ko ah yow de li nga ko tuddee rëy na loolu wallaaj ibni xarraaj koo xamante ni moom moom foo ko fekk daal wallaaj génn kat doomi dugg kat génn ak dugg génn ak dugg rek dem ak dikk yéen te yàlla jigéen ñi gën a bon ñooy jigéen ñooñu almutaxayilaat boo xam ni foo leen fekk ña ngay rëy rëyloo ka wane yu nekkut ci biti wa hunna almunafiqaat nee na ñooñaay naafiq yi te it lu ngeen ci xamul laa yadxuluna aljanna duñ dugg àjjana wala laa yadxulul jannata minhum na ñay dugg àjjana ca ñoom illa mithlu lxuraab al asam baaxoon bu ay tànkam weex lu toll ni lay la weex tànk baaxoon lu toll noonu mooy tànk subhanallah xoolal boo demee ci àll bi baaxoon yi li ñuy bari bari bari dañuy seen couleur bi ñuy bukk ñuy dem seen melokaan woolo c'est très rare nga gis ca boo xam ni deg ba daa weex wala tànk ya daa weex wala laaf ya xam nga loolu bëriwul yent yàlla mu ne lu toll ni la weex ca gurbu baaxoon ya lu toll noonaay dugg àjjana ca jigéen ñu am loolu mooy juróomi junni yoo wàññi dinañ ci am ñett yu tàbbi àjjana ci misaal loolu xam nga ne kon mooy du tàbbi àjjana dañ waxoon rek bu jeex kon loolu jigéen ñi war nañ cee bàyyi xel moo tax dama wax jigéen ñi bari leen lu ngeen di saraxe parce que gis naa leen yéen a ëpp sawara bokk na ca lam leen waxoon mooy da ngeen di wen di njekk gis naa leen yéen a ëpp sawara lu xew mu ni tat pour na la asir da ngeen di wen di njekk ndax góor gu la defaral lu dul jeex léeg-léeg nga gis ko nag diw ba ma takkee ba léegi musuma defal dara maanaam wax jooju ni ñu ñu ñàkkee nekk dëgg sax daa yéeme rek yow defe ngeen nit mën na laa takk ba ngeen toll fa ngeen di amee jafe-jafe da ngeen di defal yow ku ko defalul woon dara da nga fa toog doo fa toog xëy na loolu kay wax ku mer la rek waaye defaluma dara moom duy wax xanaa kay da nga naan nangam defaluma ko ak nangam wala waaye musuma defal dara te léeg-léeg nga gis jigéen ci ko waat nag léeg-léeg nga gis ko waat ci yàlla ni musuma defal dara mi ngi nii yooyu yooyu maanaam yow yaa ngi tàbbal sa bopp ci géej ak alkade parce que loolu mooy waral sa ak texee di ak mën a tàbbi sa war bokk na ci melokaani jigéen ñu baax mooy adamu taqsir fi xuquqi zawj mooy wattoo néewal sàggan ci àqi borom kër foofu nag tomb la boo xam ne jàpp naa ni mu guddee moom ak àq yi nga xam ne yàgg nañ koo dégg defe naa loola rek waroon naa mën a doy benn jigéen ñëw na ci yonente bi saa sallam ci xadis xusayn ibni mexsan mu jëlee ci baayam bu ndaw mu ni yonente bi dañu waaw ndaw si azatu ba zawjin an beneen mu ni azatu ba moo yow ndaw si ndax am nga jëkkër ndaw si ni ko waaw am naa jëkkër kay mu ni ko ah waaw yow noo defal sa jëkkër mu ne xanaa jéem lu ma mënul ak lu ma mën rek ndax mu kontaan rek mu ne ko ah defal loo mën de te nga xam ne sa àjjanaa nga sa sawaraa nga allahu akbar noo def ak sa jëkkër mu ne xanaa jéem rek di ko kontaan loo mu ne ko góorgóorlul de te nga xam ne mooy sa àjjana mooy sa sawara fa innahu jannatuka wa naar mooy sa àjjana mooy sa sawara mooy mën nga caa tàbbee àjjana mën nga caa tàbbee sawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay daa ànd ak doomam ñëw ne ko xam nga lu mu andi mu ne ko déere mu ne ko kii sama doom la dama ko bëgg may jëkkër mu lànk ni du sëy yonent bi geesu ndaw si ni ko ah li mu wax am naa mu ne ko waawaaw mu ne ko lu tax bëgg laa maye nga bañ mu ne ko man de li may dégg ci àqi borom kër diis na ci man diisaay goo xam ne bëgguma tàbbi sawara dama bëgg a jekkas ni ko ba ci kanam yonent bi ne ko ah xamal ni jëkkër day su ay bakkanam ak i gémmiñam doon génn dëtt ak deret nga di ko wanaasu di ko muucu di ko wanaasu du tax nga fay ko àq yi nga ko amee la hawla wala quwwata illa billah ndaw si mu ne yonent mu ne ko ma loolu loolu baa ma jekkas ni ko ba ci kanam yonent bi ne bàyyi ji bàyyi ko am na ci droit am na ci droit bu yonent bi dee ba mën a accepter ndaw loola àq yi muy tiit yent yàlla bi nee na bu ngeen xamoon yéen soxna yi àq yi ngeen ameel seen borom kër da ngay taaj reer ba noppi taxaw xadis bi xadis la wér muy da ngay taaj reer wala lekk nga taxaw maadaama achaauhu ak lekkam mi ngi ci kanam mooy da ngay taxaw tiim ko mel ni ku koy garder pour mu lekk ba pare looloo waraloon boo gisee ñu njëkk ñi ñoom ndeysaan bu ñu musaan a taaj lekk da ngay gis da ngay taaj ba pare di ñeexal borom kër gi ngir moom mu lekk yow doon na nga bokk ak moom lekk sax fa loolu lii moom man teg naa ci bët moom ak li may nekk nekk gone teg naa ci bët ci àll bi moom muy am nga xam ni da ngay gis jigéen ji day bàyyi ñu ba ndeysaan borom kër gi lekk ba doyal bu desee maccat loolay wàlla bu desee ñiitaat mooy wàlla allahu akbar moo tax it ci ñañ ko gisee day gis nañ ci ay kéemaan de gis na lii may wax nii moom lu mu teg bët la moom du dégg naa du sañatu du ajib moom kay raaytu la moom gis naa moo taxit yàlla wërsëgal na leen ay njaboot yoo xam ni macha allah la quwwata illa billah kon Aysa nee na moo leen jigéen ñi ndax xam ngeen seen àq yi ngeen ameel seen borom kër mu ne gis nga bu ngeen ko xamoon da ngeen seen borom kër day wàcc ay tànkam pënd mu ne nga sëgg sa lekk su ko pompé sa lekk mu ne doo ko pompé moos sa lekk ko pompé yent yàlla bi nee na benn jigéen ci àddina ah bu lor borom këram fekk borom këram ci waa ajana la war a bokk lu dul soxna ajana ya dañ naan ko su dooxul ma la yow ku bon nga yow ku toskare nga yow yàlla na yow kii yàggul ci yow kii léegi nga dee nga teqali koog moom mu ñëw fii ci ñun subhanallah ñaata ci ay moolu la ay jigéen di dégg di bàyyi ko ci jigéeni ajana ya borom xam-xam yi ñu ni ki ci gën a garaaw nag mooy ab borom xam-xam ab jaamukatu yàlla ab ab ab ab nitu yàlla maa ñi nga xam ne am nañ cër bu moom borom nee na ñooñu ñoo gën a garaawle ci soxna yi ka ña nga xamante nii mooy seeni borom kër kon bokk na ci àq yi mooy jigéen ci xam àq yi borom kër bi ci góorgóorlu bokk na ci àq yi nga xam ne magal ko la wane ni jigéen ñi kat moom jigéen ñi say kat dëgg la mooy bañ a sonal sa borom kër ci wàllu joxe joxe nga xam ne loolu yàlla yare yaree woon na ko soxna yonent sa salam in kuntunna turidna alxayata wa zinataha fa taalayna léegi léegi umattiakunna léegi léegi usarraxkunna saraxan jamila ku ne dem sa kër baay da ngeen di wax yonente bi yokkal dépense beeg dugg na fii génn na fële kaay leen kenn ku ci nekk nga wax lan nga aajowoo ci bagage yonente bi jox la ko ba dem fanaani sa kër baay mbokk yi xoolal mbokk yi wax ji ñu dëgëri ak yàlla ni mu fonkee yonente beeg waa këram nga xam moom lañ tuddee ahlal bayt innama yuridu an yuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira yàlla mu ngi lépp luy tilim tilim dama leen ko bëgg a faxasal lépp luy laabal dama leen ko bëgg a defar ñooñu suñu borom bu ñu leen bu fekkee da ngeen nar a fontal def kenn ku nekk takkal say bagage nga wax lan nga soxla ci ay jumtukaay ñu defal la ko nga dem lagg dem sa kër baay wa in kuntunna turidna allaha wa rasula wa daar al axira bu dee yàlla ak yonent bi mu ngeen bëgg ak kër ak alaxira ñu fay leen man nag ku def lu baax it danaa ko fay fay bu rëy ah yonent bi ni ko Aïcha aloo ci xam ay say nakk nakkal yonent bi ne ko danga laaj sa baay gis nga yonent bi mag la nag yamut ci nekk mag mu yàlla yónni kese kese kese xam nga Aysa booba gone la te gone xam nga daa gaaw a bajantu gaaw a gis boppam xam nga wax yoo mbokk waxee rek mën naa génn dem waaye xam na ni baayam Abubakar du ko digg mu tudd lu baax mu ne ko demal gisal sa baay lu la sa baay wax rek defal loola xam na ni bu wax ak Abubakar mu ne ko laggal tooge te nit ñi ci jigéen ñi xamul gis nga léeg-léeg yàlla mën na laa wërsëgal borom kër bu naqari def fekk naqari deretam boobu yow mooy sa texe yow pour nga jaamu ci yàlla pour nga tàbbi ci àjjana yàlla wërsëgal la góor gu ngay fekk nayam boobu mooy sa jaamu yàlla yow pour nga jaamu ci suñu borom loolu la gis nga asma doomu abubakar zubayr dafa naqari woon deret naqari deret tàng fiir naqari deret boobu tàng moom la doon ci jël abdullah ibn zubayr noonu la meloon bàyyi jëla jël waaye léeg-léeg asma day mer ba ñëw ci Abubakar ci nangam mu ne ko moo nangam nag mu ne ko asma Zubayr góor bu baax la te yonent bi boole na ko ci waa ajana demal nga toog nga sëyal kopp nga jaamu yàlla ci moom loolu laa ci xam xaw ma ci leen loolu ba xool malgré que li mu jàmbat moom kooku ko ni ko amoo dëgg moom nangu na ni sax am na dëgg sonn na waaye li muy sonn sonn ndeke nangul kooka ak jaamu yàlla ndax amaana góor gi la yàlla boole ci waa ajana lay bokk xamoo ci dara fekk boobu jigéen ñi lan ngay jàpp ko jàpp na ne gën a te nag li gën a soox mooy bëgg a jeexal natt bu yàlla jeexalul gis nga bis boo bëggee jeexal natt bu yàlla jeexalul ah su boobaa la mburu daj cëb taal da nga daj bu koob te su boobaa di nga amaat yeneen yu togguwaat yoo xamul kon suñu borom bokk na ci lim fay jaam yi mooy walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu bokk na ci jaami yàlla yi ibadu rahman mooy duñu yàq waaye duñu ngottal tamit nag bay joxe loo xamante nii loola yées na bokk na ci melokaan yi nga xamante ni day wane ne jigéen ji kat jigéen ji sëy mën a sëy la mooy ixtiraamu zawj mooy ormal sa borom kër fonk amaan na xëy na tomb boobu mën nañ caa jaaree tënk mu jeex fonk sa borom kër mooy def ko kilifa bañ koo def morom jigéen ñu bare bare bare bare ndey saan bokk na ci li leen yàqal mooy dañoo jàpp ni seen borom kër seen morom la fekk déedéet du sa morom de borom kër xam nga problème bi bi bi échec bi mi ngi tàmbalee ci fa ma tàmbalee woon mooy jox yàlla gëddam gis nga yàlla gëdd bi mu ko jox muy qaanitaat yàlla moo ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa yàlla moo ne góor ñi maa leen def ay kilifa xoolal mbir mi yow kii fànn ñu ko wo voteelun ko demul présidentiel demul vote député moom yàlla moo ko fal yàlla moo ne ar-rijaalu góor ñi mu ne qawaamuuna ala nisa maa leen def ñu nekk kilifay jigéen ñi loolu def defub yàlla te bokk na ci ngëm yàlla mooy kontaan ci li yàlla def mu ne bi ma faddala allahu baadakum ala baadin ngir yàlla ngëneel yi nga xam ne da koo jël ñenn ñi mu ëppale ñeneen ñi ëppale seen i morom ay ngëneel wal maa am faqu te it nag moom laa féetale muy joxe ca la tegee ni fa saalihaat gis nga ne aaya jooju fii la ko tegee bi mu noppee ca wan ni góor kilifa la mu ne fa saalihaat jigéen ju yiw te mën a sëy te nangu kilifteef ak jëkkër qaanitaat day nangul yàlla ba noppi xaafizaatun lil xaybi nangul borom këram déggal ko suturaal ko ci ay ay surtout nag nëbbal sa borom kër ay ayibam ndax xaafizaatun lil xaybi nag da cay dugg gis nga jigéen war naa fexe ba li muy dund ak borom këram yaay ji ko jur sax du ko xam man maa xam jigéen joo xam ni daj na ci sëyam loo xam ni su ma ko tuddoon tey ñenn ñi danañ ni est-ce que kooku ci jamono jii la doon dund ndaw see ma wax ci làmmiñu boppam mu ni ma lii li tax nga jot ci mooy laajub masala ne sama yaay ji ma jur waxu ko ndax suturaal sama borom kër ndaw see ma wax loolu man mu ni ma lii sama yaay xamul mu ni ma lii sama yaay xamul bokk na ca lan ma wax xëy naag borom kër ga ba teqali ko ab diir bu yàgg mu ni daal daal sax mosuma koo jëndal daal benn yoon musul am mu yëkkati daal mu ni yii ma yóbbu woon moom laa indiwaat ak yeneen ak yeneen i problème yoo xam ne nit ki dund na ko mu ne ma lii masala tax nga jot ci nga sama yaay ji ma jur waxuma ko ma jàng ci ni xanaa xoolal nit ak ni ko yaayam jegee parce que sutura dafa baax lu dul lu mënta ñàkk moo tax borom xam-xam yi di wax ne maanaam nit ki bu fekkente ne lay xew diggante ma borom këram bu dul aajowoo bu ñëw ba jéggi dayoo wala laajum masala wala yu demee noona mu denc ko jaamoo ko yàlla moo gën ci moom tey nag subhanallah boo demee ci marché yi moom la ñuy waxtaanee nga dem ca mbooloo moom la ñuy waxtaanee nga dem ca mbaboor bi moom la ñuy waxtaanee rawatina di waxtaan bay waxtaan yi gën a garaaw yonent bi daa génn benn bis fekk saxaaba yi mënu mënu mi kenn ku nekk kii wax yonent bi génn rek ku nekk daal di jekkas di ko waaw xam nga ñuy wax lu jaaduwul moom boo leen bettee rek ku nekk noppi yonent bi ni mooy yéen daa mel ni yéen da ngeen di waxtaanee li ngeen di jëkk ak seeni borom kër de gaa yi ni jadd mu ne fa aramal qawm kenn ku ci nekk sëkk kenn ci jigéen ñi ne wax leen yéen a ngi nii ñun ñëpp dañ doon waxtaanee loolu lu ngeen ci nëbb bu ngeen ragal bu ngeen ragal yàlla ngeen ragal yonent bi yonent bi dañ doon waxtaanee loolu yonent bi ne bàyyi leen loolu gis ngeen loolu mi ngi mel ni saytaane bu góor ak saytaane bu jigéen dàqante ba ca marché ba di ñëpp di leen xool ñu jaaxaan di say foofu gis nga tey ñaata ci ay secret biir kër mooy génn ah te problème mooy léeg-léeg sax xarit bi nga gën a wóolu nga koy wax mu dem jottali ko ka ca des ka ca des jottali ko ka ca des ndax nit ñi ñëw dina ay laaj morom da koo jox mu segg jox sa jox moromam su ko defee lu mel noonu bu mënta ñàkk nit ki bu fekkee ci buntu laaj la na seet borom xam-xam bu mu wóorute borom xam-xam bay ragal yàlla su fekkee ci buntu diisoo la na seet ku ñor te xam mu wax ak moom te kooka it denc ko benn doy na ca bu mënta ñàkk ñaar ñett moom ëpp na ca. léegi da ngay dem ba nit ki léegi day préparé bu tëddee ba guddi mu waxtaan ak ngegenaayam mbaa miiram bañ a waxtaan ak kenn ndax wax na si kon yu mel noonu bokk na ci lii war a jigéen ju baax mooy respect yonent yàlla bi nee na laa amuru ahadan an yasjuda li ahad man du ma digal kenn mu sujudal kenn walaw amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha su amoon kenn ku ñuy digal mu sujudal kenn mu ne jigéen lañ naan sujudalal sa jëkkër mbokk yi sujud mooy jaamu yàlla gi gën a rëy ci jaamu yàlla yi ndax cër bi gën a màgg muy jël bakkan xar kanam ngay dëppal yàlla mu ne du ma digal kenn mu defal ko kenn waaye su ko kenn doon defal kenn borom kër la ñuy wax soxnaam mu su jootal ko loolu mi ngi ko waxee woon ci bu gaa yi dikkee ni ko dañoo gis ay buur ci Éthiopie ñoo xam ne seen i dag dañ leen di su jootal ila axiri yi yonent bi wax loolu sallallahu alayhi wa sallam ca la waxee woon xadis booba jigéen ju lor borom këram jigéeni àjjana yaa ngi koy móoloo di ko wax ay musiba naan ko musiba wàlla tàbbi ci sa kaw léegi teqali ko mën kon ci gàttal mbokk yi ñu xam ni lay wane ne jigéen ji sëykat la mooy day jox orma borom këram jigéen am na góor guy naan sàngara te bu naanee ba génn xale yi di ko dal mu ñëw faxas ko ndeysaan dugal ci biir ne ba suturaal ko sang changé lam sol daal di noppi li may wax nii lu am la man ni dama ko nettali te defe naa nettali nañu ko ci ñaari waaye yoo xamante ne daanaka benn bokk ci ak morom la defe naa mos naa fee nettali benn waay boo xam ni benn borom xam-xam saa yu musir moo ko doon nettali ci Saoudia nee na waa ji dafa xëy jot ak jabar ji sa way xaj ci ba mu xëy rek dóor mbéj soxna si tàmbalee jooy rek tombeek baay ji ak yaay ji am fu mu doon dem rek ñu ne nañ jaar fii seet si waa rek jëkkër ji daal di yëndu ci bunt bi rek seen papay jabaram ak yaayi jabaram ñooy fëgg xam nga boobu moom daa garaaw lool te ndaw saa ngi jooy kat xam ngeen ne waa ji dem waa ji daal ngàbb sarbe rek dem dugg ci biir duus bi moom fas yéene yaatikaaf foofu parce que rus nag xamul lu muy def jërë wara ndaw mu toog ci biir duus bi rek génn rek moom daal ma ngaw daal la sarbetam xam naa tam nga wut jàpp dif moom daal ma nga toog fam toog rek waaye xoolal ndaw si liggéey bu rëy lu mu liggéey foofu ndaw si lu mu yër ba xam ni baayam ak yaayam la ndaw si daa dem ca lavabo bi defaru ba jekk mel ni jooyut sël mu waat ba jekki-jekkal ubbi ubbi bunt bi bàyyi jeg yaay ji yegg si bi ñu yegsee ñu càmm sant ah ñun de dañoo ñëw dañoo romboon fii rek ñu xaaral seen wàll fekk ñu ngi gaare seen oto mu ne ana ko borom kër mbaa yéen a ngi ci jàmbale ku wéru moom kay macha allah ko moom kilifa ko kay borom ko ñaanal yàlla mu nangam nangam rek borom kër gi di karaj ci bunt bi génn ah waaw faw mu génn parce que la taxoon muy làqatu kay dañ na mu daal di génn ñëw toog ndaw si daal di koy sagal wax ne kii kay moom ñaanal leen ko yàlla góor bi mën a sóoree jigéen ñi waaye karwaase na ko karwaas boo xam ne moo gën a sax seen biir loolu góor loolu loolu karwaas boobu moo gën a ñëw ci ay dóor loolu fi ne nga jëloon bare sax tiim góor gi di ko dóor ci ndigg sax moo gën a seet nee na yàlla def nag borom kër gi daal di dem rek mu ne ko nan dem marché nga wax boyatu or boo bëgg ma jëndal la ko sutural na ko kon yu mel noonu jigéen ma ci bàyyi xel xam ne li muy def ak jaamu yàlla la yàlla dana ko fay jigéen ji na yëg ne yàlla moo def góor gi mu nekk sëriñam mu nekk njaatigéem mu nekk kilifaam mu nekk borom këram loolu foofu suñu borom la te it nag nit wërta bañ nu yàlla séddee wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad jigéen mënta nekk kilifa jigéen mënta nekk njiit yent yàlla bi nee na lan yufliha qawmun wallaw amrahum imraa nit ñoo xam ne seeni mbir jigéen a ko yore mu ni seeni mbir du baax mukk kon góor mooy nekk kilifa mooy sang bii tomb bu mujj bi may jeexale mooy ñu xam ni loolu nag su amee dana jur ay nataij natija bi ci njëkk mooy dana see ngërëmal yàlla defe naa deetaat bi ajal dana ci ngërëmal yàlla ak gis ko yàlla suñu borom defal na ko ñaareel bi mooy da ngay am xayaatan saidatan tayiba dund gu teey dal nga xam ni wax dëgg yàlla bépp góor boo xam ni nekkal nga ko melokaan wu mel nii wax dëgg yàlla dana la fat na dana la fat de gis nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nekkee xadija yàgg na ca de yàgg na ca de ñàkk mooy tax ko war a jéggi de déedéet waaye nag xadija daal liggéeyam loo xam ni est-ce que xam nga ni góor di nga nekk ak moom mel melokaan woo xam ni même dana am aajo sax bala ko yuru sa wax misaal bi may joxe maanaam góor boo xam ni ñu yore benn soxna ci misaal yàlla may ko mu takk ñaar mën naa dem ba bëgg takk ñaar waaye day day mel ni ko ragal soxnaam fekk du ragal de déedéet maanaam soxna si da koo jiiñ ay teraanga ba mu rus lu muy wax kii su ma koy wax lan laa koy wax gis nga yu mel noonu loo yooyu yu mat a bàyyi xel la am na suñu benn góor gun dëkkaloon ndeysaan lu mel nii moo ko daal moom daal boo waxee rek am na benn waxtaan wu ñu mas a def benn ustaas ñëw def ko mu pare dañu toog ñu xale yi ndax ñun ma ko doon morom mu naan ah yéen seen ustaas bi ngeen indi fii pour mu ñëw jaxase ma ak nit ñi di wane ne man benn jabar laa yore mu ni paa yi dañ ko doon wax naa ko yow benn jabar rek nga yore mu ni waaw waaw man mi yore benn jabar yéen ñu yore ñaar saa bu ngeen yore problème maa ngi rek leen weddi leen mu ni paa yi ni xiir ndeysaan faatu na yàlla yàlla yërëm xam nga yu mel noonu wax dëgg yàlla kam nekkaloon nag jàmbaar la nag ndax xam naa ko kon yu mel noonu léeg-léeg ñu faral di am beneen bi ci des nag te boobu ci mujj mooy mën naa jural nit ki nag mu am njaboot bu barke te it nag wa xaqan loolu mooy am ndax wal baladu tayibu yaxruju nabati bi idni rabbi walladi nakida jigéen ju nekk war naa sóoraale ngërëmal borom këram tey su ma faatoon lu sama borom këram di wax imam ahmad day nee na ummu saalixa ngi nii tëdd de nekk na ñaar fukki at te mosuma ko gërëm naa ko defal suñu borom ñu jël imam Surayx ne nañ ko waaw loo wax sa soxna si mu ne xanaa kay dund nañ ñaar fukki at mosu ñoo jot a dul benn yoon te maa ko toog loola bu ne woon moo ma tooñ sax ndam la dund nañ ñaar fukki at te benn yoon lañ ma sa jote te maa ko tooñ dama ne bu doon ndaw saa ko tooñ sax loolu ndamal ndaw sa la mu ne maa ko tooñ yooyu jigéen war na koo fexee am ci borom këram nu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak ndimbal ak yërmande lii mu bañ a nekk lu ñuy dégg rek mu sànneeku waaye mu nekk loo xam dafay jeqiwaat yëg-yëg yi waaye soññaat ñu delloo ci waat ñu ca la nga xamante ni moom mooy dund ñu wa suñu borom bëgg ci ñun yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi